bonjour, je m'appelle Larissa Kryukova, je suis l'épouse de, euh, de l'ambassadeur de la Russie accrédité au Sénégal. Je suis aujourd'hui euh, selon l'invitation de mairie de Thiès. Euh, je remercie Monsieur le maire euh, pour cette euh, invitation. J'ai vu beaucoup de choses. Je, suis aujourd'hui les yeux et les, oreilles de mon mari. Je veux transmettre le message Euh, j'ai compris que Thiès a beaucoup de besoins dans, dans, dans tous les niveaux. Euh, vous savez, euh, il faut travailler beaucoup pour que Thiès deviendra une ville euh, comme exemple à, à suivre pour, pour, toutes les autres villes du Sénégal. Euh, moi, j'aimais l'ambiance qui, qui, existe dans, dans, dans l'air, dans, dans, cette ville. Euh, moi, j'aimais les, les Tiessois, euh, les gens qui habitent ici. Ils sont tous euh, magnifiques, euh, souriants. Euh, je souhaite beaucoup de choses à tous les gens, aux mairies, aux maires personnellement. parce que je comprends qu'il y a beaucoup de travail. Euh, et comme vous dites, Inch'Allah, euh, inviter les investisseurs, et peut-être les investisseurs russes euh, viendront un jour. Euh, je vais transmettre euh, toutes mes impressions, toute l'information à mon mari. Euh, merci à vous toutes et vous tous pour, pour nous avoir accueillis dans votre vie magnifique. Vous avez aimé ici Bien sûr. Qu'est-ce que vous euh, l'ambiance. Moi, j'aimais votre mère, <laughs> qui, à mon avis, euh, très, simple et qui connaît des besoins euh, de votre vie, de, de, des gens qui habitent ici. et je vous souhaite, au maire et à vous tous, de réussir, continuer de faire votre ville. example as river. Eh, could dañu doon dalal eh, suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo fi teewal eh, réew mu ñu tuddee Russie ñoom nag lii nee nañ lu bees la ci ñoom ndax seen liggéey daanaka dafa yemoon si si Dakar comme ñu dañu dem di leen seeti dañuy wër ambassade yi dañuy dem ci ñoom waxtaan ak ñoom xamal leen ni. que ci biir Sénégal am na dëkk bu ñuy wax cees boo xamante ni nag avenir bi la ndax tey jii aéroport bi nga xam ne euh, moom moo nekk ci cees bokk ci département Thiès 80 pour cent yi nekk ci biir cees aéroport boobu di waaj a ñëw su dikkee dina tax dèjà ku xamu ko miinul woon sax di ko gën a miin ndax aéroport bi nag aéroport international Blaise de Thiès la euh, loolu la yàlla dogal alors ci cadre boobu ñoom. am na lu ñu commencé woon dégg bëgg ko gën xam ñu am lu ñu waxtaanee woon ak ñoom ñu woo leen ci cadre kaay Thiès ñu dikk ñu ànd ak ñoom am na lu ñu jot a wër euh, njëkk nañoo gisee jigéen ñi jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci kuréelu développement yi jot a waxtaan waxtaan bu yaatu ba ñoom ñu jox leen dox daje beneen yoon ci weeru octobre su ci yàlla àndee ngir yaatal yi nga xam ne tàmbali nañ ko waxtaan ak ñoom te mu jëm ci pàcc yu bëri jóge nañ fi dem ci INEFJA bi nga xam ne. Euh, gone yi nga xam ne seen gis-gis dafa dafa neexul trop ñu ci bëri am ànd ak silmaxa wala seen gis-gis bi leerul ñooñu fañ leen di yore di leen fa jàngale euh, dem nañu fa xam naa ne nag loolu lu lu am na lu mu def ci moom waaw lu mu def ci ñoom sax laay wax euh, ba am nañu yéene jàppale leen bañ ci jógee dem nañ poñeen dem poñeen bi c'est pour rek wane ni ñëpp ci Thiès lañ bokk maanaam ni ñu tuddee Poñen noonu la ñu waroon tuddee mënoon tuddee kër Mun Njaay noonu la ñu mën a tuddee noonu la ñu mënoon tuddee Coonaax noonu la ñu mënoon tuddee euh, Fayu wala Grand Standing wala feneen fu mu mënti doon euh, dañuy def saa yu gan ñëwee rek ñu am fenn fu ñu ko yóbbu bu beneen gan ñëwee ñu yóbbu ko feneen ñoom tey Poñen lañ leen yóbbu woon ñu am lu ñu fa jàngee ci wàllu santé bi d'abord am na ñu fa gis am na yu ñu bëgg a jàpp euh, waxtaan ak ki nga xamante ni mooy délégué de quartier bi. mu tënk kayit aussi jox ñu wax ñu lan la ñuy jooytu li nga xam ne aju na ci ñun fas nañu yéene def ko maintenant leneen li nga xamante ni ñoom ñi ngi ko yaakaare ci ñoom ñoom bu ñu demee danañ ko càmbar parce que jox nañ leen kayit bi seet luñ ci mën a jàpp ñu jàpp ci buñ ci jógee ñu ñëw fii ci voirie bi fii euh, ndax ñi fi nekk dañu ko outillage yu ñu soxla amuñu ko mais am nañu yéene bi foog ñu xëy si foog ñu jéem a jàpp te dëkk bi dafa war a set tey jii am na programme bu fi nekk ñu di ko programme national de gestion des déchets muy programme bu bu boo xam nag état bi mook fi indi euh, di ñu ci jàppale mais programme boobu dañu waxoon ne ñaari at lay yem moom normalement kon mois de mai la waroon jeex xamuñu ndax day wéy xamuñu ndax du wéy ñun dañu war a jël suñu matukaay léegi pour jël matukaay dañuy soxla yenn matériel yi soxla nañu ay benn tasseuse soxla nañu ay tracteur soxla nañu ay bac soxla nañu yeneen matériels yoo xam ne mooy mën a tax dëkk bi gën a set loolu nag ñi woon ci liggéey bi gaa xaaruñu woon waaye amaat nañ ci yaakaar tamit ci ñoom euh, bokk na daal ci li tax ñu ñu ñu indi leen fii ci barab bi alors kon kaay Thiès bi solo bi ñu ko jox daal mooy fexe ba ñi nga xam ne dañoo am leen teg Sénégal en tant que réew ñuy man di wàcc ba ci biir gox yi rawatina goxu cees di xam yenn yu fi ne yoo xam ne ñoom dinañ ci mën a def dara li ma wax rek ne tepp-tepp mooy jur yu réet alors ñoom bu ñu indee ñoom waa Russie waa Japon indi waa Thaïlande indi waa Tunisie indi keneen indi keneen indi ah dina jur dara maintenant ñun it am na loo xam ne day jóge ci ñun di dem ci ñoom waaw ndax nag am nañu caada am nañu tamit yeneen i pexe ak yeneen ngelaw ji yoo xam ne daanaka saa yi ñu dajee ci dëkk yi ak ñoom di waxtaan ak ñoom yaakaar naa dina am aussi loo xam ne ñu ngi leen koy indil waaw lii daal moo waraloon dajëb tey bi jërëjëf